ko soxla te dina ci joxe benn misal rek ndax lu sori la ci man lu tooyal sama xol la mooy gàtt gi nekk sama gannaaw kii mbokk yi li tax mu doon loo xam ne dafa sori ci man gis ngeen gàtt gii ni mu mel ni mu rafete gis ngeen ni mu toll kii sëñ Cheikh Saliou Mbacke dal na ko yàlla yokk yaram yal nañ ko fi yàlla bàyyi lu yàgg yàlla na ko yàlla yokk ko ci bépp fànn moo ma jagleel gàtt gi keroog bi ma sëñ Moustapha woowee ne ma sëñ Cheikh nee na am na loo xam dala koo jagleel waaye gàttuk barkeelu la te mu defoon ko nii daaw duguleet ma ne ko ah loolu de neex na ma lool waaye su ma sañoon na bàyyi man ma ñëw jël si ko ma yónnee oto mu jël si ko mu ne ma déedéet moo koy dawal moo koy dog dugal ci oto andi ko ba sa biir kër moo tax gàtt gi am valeur symbolique bu am solo ci man muy gàtt gi nga xam ne moom lañu fas yéene bar barkeloo rek ni ko señ bi waxee nii mu ko defee du gulleet wax naa ko ndax defaat na ko keroog bañ may agressé ci corniche ba ba tax ma mujj nekk ci hôpital tëdd fa ay fan doon faju dafa yónni sëñ abu jox ko enveloppe boo xam ne un million moo ci nekkoon ne ko nee ko enveloppe bi ñaan la ne ko téye xam naa ni woon it lu tooy sama xel sama xol car may génn ci hôpital ba ci enveloppe boobu laa sàkkee bi ñu ma defaree sama facture muy sept cent et quelques mille ma fayee ko kon maa ngi koy yokk ñaan di ñaan sénégalais ñu ñaanal ko